Dakar Matin. ñi ngeeg euh, Mamadou Mansour euh, Diouf euh, boo xam ne xam nañ ko bu baax a baax muy anesthésiste réanimateur Mamadou Mansour coow li xew fi mu nekk nii ci réew mi rawatina waa émigré yi dañuy joytu benn décision bu bàyyeekoo ci ministère des affaires étrangères ne léegi dootuñu rapatrier benn néew ci dëkk yi nga xam ne coronavirus bi dafa yëngal bu baax a baax. te nag bu ko rapatrier il faut mom avalou ministère des affaires étrangères ñu mën la laaj fofu yeen seen dëkk yi lan lañuy ñuy dencee yi nga xamné dañoo faatu ci coronavirus. waaw jërëjëf Pape Alé maa ngi lay gërëm di la sant je bi nga yëkkati tey nag loolu moom ab solo la effectivement ñun ñi nga xamante ni ñoom lañ nekkal fii ci diaspora bi euh, am nañ lu leen naqari trop. parce que nga am sa mbokk bu gaañu bitim réew déjà loolu rek. doy na doy na euh, bu fekkente ni tamit nag dañ ci yokk ni doo ko mën a jël yóbbu ko sa réew mu dem ñu denc ko fa nga xamante ni nii fa lañ ko foofu la dëkk loolu dañ yokk métti te xam nga li li tubaab di wax processus de deuil daf ci bokk nga mën a jël sa néew xam ni fii nga ko denc

parce que fan ci ginnaaw dégg naa suñu benn collègue médecin boo xam ni mooy chef du service national de l'éducation et de l'information pour la santé SNEIPS e bi nekk ci ministère de la santé muy justifier muy jéem a justifier sax laa mën a wax euh, mesure boobu mais bu ñu déggee raison bu mu évoqué wax dëgg yàlla pour képp koo xamante ni spécialiste nga loolu da nga ciy xaw a tiit euh, léegi nag procédure bi fii ci France mooy li ma lay njëkk leeral mooy que ni. opposé wuñu ci nit ñi jël seeni néew di leen yóbbu ay la yéwén loolu yàgg na fi am nit bu fi gaañoo te dëkku fi ay mbokkam jël ko yóbbu ko loolu nag loi bi daf ko réglementé organiser ko ba mu leer nañ muy coronavirus muy ñàkk coronavirus avant coronavirus amoon na feebar yoo xam yu ñuy wax feebar yoo xam yu ñuy wax maladie contagieuse bis bu nekk nit ci gaañu nit ñaa ngi fi jël seeni néew ci condition yooyu di ko respecté procédure yi di leen yóbbu bitim réew di leen denc ci seen mbokk loolu moom am na fi euh, léegi nag dafa am fii lu ñuy wax le code euh, général des collectivités territoriales moom mooy organiser euh, loi yi nga xamante ni nii mooy encadrer li ñuy wax transport international de corps léegi dafa wax ci article bu ñuy article 22 13 22 mu ne la délivrance d'un laissez-passer mortuaire pour l'étranger ou d'une autorisation de sortie du territoire français est autorisée dès lors que le défunt est placé dans un cercueil hermétique qui permet, qui prémunit de toute contagiosité, quel que soit le motif de décès. Quel que soit le motif du décès. lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain, Madame France, métropole, ou d'un département d'outre-mer, l'autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil. donc le euh, corps cercueil hermétique. cercueil hermétique cercueil hermétique est caractéristique. des caractéristiques il doit être en matériau biodégradable il doit être muni d'un dispositif épurateur de gaz et en cas d'infection transmissible le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique xam nga loolu fii wax ju leer la tey jii nii par exemple bu nit gaañoo fii ñun ñi nga xam ni ñun ñooy toppatoo malade yi malade coronavirus bi bu ci amee ku gaañu dañ koy wàccee ci morgue bi léegi morgue bi boo fa demee am na personnel bu fa nekk personnel boo xamante ni ñoom ils sont spécialisés pour gérer les corps muy corps bu am maladie contagieuse wala bu gaañu ci beneen feebar bu ci munti doon am nañ fa matériel yi nga xamante ni moom la ñuy sol pour mën a protéger wu képp koo xam ne da ngay manipuler corps loolu moo taxoon sax taay la ci ginnaaw ma ni loi bi daf ko évoluer parce que bu njëkk dañu woon feebaru coronavirus bi comme suñu xam-xam bari wut ci woon kenn du leen moo manipuler kenn du leen sang kenn du leen kii léegi nag loolu soppeeku na dañ leen di sang dañ leen di lëmës ay ci ay conditions yu leer ak sur circonstances yi nga xam ne moom nga koy defee léegi nag ñooñu. ci morgue yi am na fi ay jullit ñoo xam ne ay jullit lañ seen liggéey mooy sang néew fii am na fi France ñoo xamante ne loolu la ci loolu la ñuy dundee yow famille bi nga am sa mbokk bu gaañ ci hôpital da ngay ñëw wax ak ñoom ñoom ñu ñëw sangal la ko buñ koy sang mën nga ko fekkee boo boo boo boo boo la neexee nga taxaw fekkee sang bi pour assurer ni sang bi mu ngi jaar yoon ñooñu bu ñu waree sang koo xamante ne nag dafa gaañu ci wàllu coronavirus. ci morgue bi am na fa matériel bu nga xamante ni matériel de protection ba pare personnel morgue bi ñoom ñoo leen di former ci ni ñuy utiliser matériel boobu ba nga xamante ni du exposé ñooñu bu la ko sandalee ba pare nag dañ koy jël lëmas ko ci sac mortuaire bi ñu wax noonu ak euh, kii bi nga xamante ni mooy solution antiseptique beeg yooyu yëpp def def procédure boobu yëpp loolu yëpp nag bu ñu koy def après dafa am lu ñuy wax procédure de fermeture du cercueil et pose des scellés loolu nag article bi nu mu wax mooy les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la responsabilité de l'opérateur funéraire en présence d'un membre de la famille donc ci morgue bi dafa am ku ñëw opérateur funéraire kooku noonu euh, moom dafay liggéey ak waa préfecture waa préfecture ñooy délivrer autorisation yi kooku mooy yor matériel bi nga xamante ni bu bu ñu defaree néew ba pare bu dugg ci cercueil moom moo koy fermer fermer boo xam ne cercueil bi dootul tijjeeku léegi bu ñu paree loolu famille bi moo am charge u lijjanti luy transporté corps bi ba mu dem dëkk loolu ci la assurance yi di intervenir ak transporteur funéraire man mii di wax ak yow nii tey am naa jël naa assurance boo xam ne dama koy fay chaque année boo xamante ni tey bu yàlla dogaloon yàlla na yéex ma gaañu mais ñooñu ñooy toppatoo sama rapatriement Sénégal du ma fi nekk di sonal kenn te c'est une occasion sax pour wax suñu mbokk yi nga xam ne dañoo nekk fii ci diaspora bi gën leen a ñaax pour ñuy souscrire genre assurance yooyu yaa ngi dégg ma euh, par exemple sa des assurances yoo xam ne ngay fay bari ay vingt euros ngay fay xam nga boo gaañoo ñooñu ñoo lay jël yóbbu la ba sa dëkk parce que mën nañ jël sax en sax benn membre de ta famille bu lay accompagner. mais est-ce que Mansour foofu ma laaj la benn mbir est-ce que gars yi ñu ragaluñu wàllante bi moo taxoon ñu interdire loolu. très bien loolu laa wax nak donc décision bi dafa nek décision bo xam bu ko xolé ci walu sur le plan médical et sur le plan scientifique amul cëslaay amul cëslaay parce que tay ma jox la exemple malade bi nga xamante ni mi ngi dund nek ku am feebaru coronavirus man médecin bi koy toppatoo te loolu bis bu yalla sak ci lay nek may nek en contact ak malade dama koy laal diko examiner diko ko faj di def ci mom ay geste nangam nangam jumtukaay yi ma utiliser sol ko matériel de protection bi ma sol noonu ah pour ba nga xamante ni bis bu yàlla sàkk ma nekk en contact ak malade bi ba loolu dina aar mais matériel boobu koo ko solal mën na sang ñëw bi mën na ko laal te du ko wàll léegi te loolu bu ñu ko jëlee ba def ko ci cercueil hermétique ba pare yaa ngi dégg indi ko circuit bi muy jaar yëpp ba ni muy ñëwee aéroport ba ni muy wàcce ba ñu convoyé corps bi ba ne normalement ay police a parce que dañu vérifier ni dañ koy ba kenn mais risque sanitaire pour le pays je suis désolé Pape loolu loolu amul loolu amul amul amul sur le plan médical et sur le plan scientifique parce que loolu bu lañ koy a te loi bi wax Hmm. donc Sénégal décision bi ñu jël ni dafa dañuy interdire ku ñu rapatrier corps bi loolu daal mën nañ jàpp ni conseil bi ko lal dafa nekk conseil boo xam ne amul cëslaay ci wàllu médecine ci wàllu scientifique comme li may wax rek on a le droit de se tromper de bonne foi mais on n'a pas le droit de persister dans l'erreur si celle-ci a été signalée li ñu ñaan mooy ñu ñaan ci autorité décision bii mi ngi déchiré suñu société ñu koy déchirer nit ñi am nañ lu leen nakari te bëgguñu suñu réew son unité et sa cohésion mise à rude épreuve donc il est temps de revenir sur cette décision hein, parce que nit boo joomé war nga mëne nangum da nga joom nga dellu siwaat ginnaaw lii comme yoon mayenako comme santé mayenako risque sanitaire bi ñu ci doon ragal amul